la nuyu naa la. waaw Thiandoum fay naa la. tey nga ñëw ci bis sa grand sa xarit guy gi muy ngénte doom nga daal ñëw teew tey ban témoignage def ci moom. waaw guy gi moom dafa nekk suñu grand bu baax wax dëgg na yàlla lu mu xewle lu ñu xewle day ñëw ba may tax jabar daa bàyyi itam yëpp ñëw man tamit bu xewle damay mën a ñëw daal. Mhm. ndax sama grand bu baax la sama xarit la sama lépp la dañuy waxtaan si lu bëri man ak moom kon bu xewle tey bésam war naa mën a ñëw. nag jàpp am na benn complicité bu jege bu am seen diggante yéen ñaar. waaw loolu moom dëgg la moom ndax wax na dëgg lu bëri loo xam ne dañu koy waxtaanee man ak moom bu baax ne ma del def nii del waxee nii del defee sama xarit la daal. Mhm. bu loolu weesoo depuis sa dernier combat ak euh, Tapha Leer ñu ñu gëj a dégg sa ñu démarré sa combat dégg ñu la ci leen lu waral. ah maa ngi toog di xaar rek man xale laa rek maa ngi toog di xaar rek na yàlla xam naa daa jotagul rek mais bu jotee rek dinaa bëre. Mhm. ñu déggoon sa diggante yaag Pam Doy finalement mu daal di dem jël Jackson lan moo yàq combat kii bi la yàqee ci promoteur bi ndax moom da koo waxaale woon ba juboo ba lépp mais ci temps mi ko bëgg dafa gàtt te combat yi kenn ko préparé ci mois loolu après ñu mujjee mu mujjee jàpp beneen date mais moom waxaatu si dara man tamit woowu ma ko waxuma ko dara loolu moo tax <laughs> maa ngi doog di xaar rek waaw waaw am na pour yu ma doon wax ah, am na combat yu ma wax mais arrangé wu daal. <laughs> non lu xeeb sax xeebu ma leen sax mais dama xam ne làmb booloo gu ma maa ñooñu daal man ñi ma samay morom rek samay morom rek laa war a bëral non tur tur loolu tur dañuy fuuy. grand part ñu ngi leen di. waaw ñu ngi leen di fay Thiandoum ak Bekaay ñu ngi fay waa Guédiawaye Alpha ginnaaw bi ñuy jullee ci Seydina Mohamed ñu ngi nuyu mbokk yëpp. waaw ñu ngi nuyu waa Géejawaay yëpp tamit waaw tey mën nañu sa poulain daal di xewle eh, nekk sa xarit nekk sa rakk guy yi euh, mu daal tey muy ngénte doom nga daal di teew ci bis bi tey boo doon wax ci moom rek témoignage bi nga mën a def ci moom waaw guy gi euh, xale bu baax la xale bu yaru la waaw boo gisee mu xewle ma ñëw c'est que sama diggante ak moom daf ma def mag ma def ko rak man fi may toog nii di wax ak yow ni tey ci guddi laa war a dem jëli sama maam bi jur sama yaay dafa gaañu depuis l'Italie tey ci guddi laa war a dem aéroport jëli ko mais guy gi moom ma ji loo xam ne lu bu xewlee ak lu ma mënti xewlee il faut ma teg fa sama tànk boo gisee ni ma mel nii sax maanaam damaa xool circonstance bi rek ci li may dund rek ma ñëw mais waroon na fekk ma def sama jesneer sañ sama jekk def sama poos xaalis ñëw ngénte si parce que suñu doom la ba pare jabaram nekk nit ku baax day defar ba mu baax togg lu neex invité ñu mu ñëw mu invité ñu ñu lekk xam nga mu nekk nit ku baax jabaram xam nga kon guy gi moom macha allah dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla defal ko jàmm ngénte li nii doom ji ñuy ngénte may ñaanal ñi fi teew ci ngénte li lépp bis bu ñu koy maye ñëpp kenn bañ a teew fa waaw loolu daal laa ñaan quoi mais guy gi moo nekk xale bu yaru xale bu baax moo tax wax dëgg yàlla bu lu mu xewle ak lu mën am ak lu ma lu ma xat xat xat xat il ma teg fa tànk sama tànk waaw. waaw bu école de lutte Papa mbër ñu ngi leen. waa Thiandoum maa ngi lay fay ginnaaw ba ñu sant yàlla jërëjëf yéen a sant suñu ñaari waajur ñu leen fay bu baax a baax. tey nga ñëw ci bis bu mën naa sa mag sa xarit guy gi tey muy ngénte doom nga ñëw teew ci bis bi tey boo wax ci moom ban témoignage nga mën a def ci moom. waa guy gi moom mun naa la booy wax si moom xam nga doo fi jóge quoi ndax doon na mag joo xam ne mag ju baax la xam nga mag ju am taalibe la mag bu ñu respecté bu ñu jox cër xam nga yàlla def muy tudd doomam yëkkati téléphone am wooñu xam nga moo waral suñuy teewaay fii quoi di ñaan doom ji yaa na dund ba am ndaay ak baay doon na mag joo xam daal mag ju baax na waaw kontaan nañ si bis bi nag xam nga mooy loolu sa kaw sa kanam rek jaajo waay. waaw ay waaw ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bàyyi di sant bu baax di la gërëm di nuyu monde entier di ñaanal ñëpp jàmm. tey nga ñëw ci bisu sa tête de file nekk aussi sa mag sa xarit guy gi mu am muy ngénte doomam tey boo doon wax ci moom rek lan nga mën a wax ci moom. waaw guy gi sunu grand nekk sunu lépp ñu bokk nekk benn école c'est que jàmm yónnte jàmm xam nga bu xewlee ñëppay teew li gars yi di wax ay siège mënuñ ko loué bâche mënuñ ko loué mais nit kenn mënu koo moo tax ba mu ñëwee fii man sax man lii dama waaw dama gis nit gisoo fi ñëpp a ñëw waa axlu làmb ñuy jënd làmb waa géej yooyu ñëpp a jóg ñëw jàppale ko te moom moo wane loolu nit ñi ne quoi waaw di ko si ñaanal jàmm di ko ñaanal doom ji yàlla na màgg xam nga ba ba guy gi rek ci li mu ko doon juree quoi yàlla defal ko jàmm ba mu am jëkkër bu baax si loolu lañ koy ñaanal ak jàmm ju bëree bëri waaw xool sedd na guy di ñaanal jàmm di ko ñaanal jabaram di ñaan yàlla bu dara dugg seen diggante ñaar waaw di ko ñaanal jàmm bu baax ak wér waaw jërëjëf kontaan nañu ok. waaw mbokk yi ba tey ñu nekk ak le grand Pape Guy gi mun ku nekk xam na digganteem ak mbër kenn door ko présenté Pape maa ngi leen di. waaw Thierno maa lay fay di la sant di la gërëm ci déplacement bi nga def yombul la que bi ma la bi la wooyee wax la ko gàntu woo ñu benn yoon te lépp lu ñu mës a def rek yow dañuy gis ne da ngay ñëw taxaw si jàpp si xam nga defal ñu tamit xam nga mënuñ la fay quoi ñu ngi leen di ñu ngi lay sant baa di sant waa Guédiawaye info di leen bëggee yéen ñëpp quoi. Euh, tay ñu ñew gis bis bi ni mel mu naani ni ay yëpp daal wuy ci tay sa xarit euh, sa doomu nday nan nga gisee lool. wa mais contente contente rek na parce que nit nga woote ñu wuy ci la yombul mais nga woote ñëpp ñuy ci la lool yow ya ko lebalé peut-être mom moko lebal nit ñi tay ñëpp ñoo ndax bo gisee barki dem ba tay nelaw ñi ñëpp gis nga leen ay responsable lañ bay seen kër bay seen jabar bay seen i doom ñëw nekk ci bis bi parce que peut-être li ñuy dund ak waji la rek mu wan leen ko tamit mu nek lu rafet tamit moo tax gars yi bàyyi yiteem ñëw jàpp ci xewam jàppale ko ba affaire bi ba réussir quoi waaw tamit tamit di si kontaan tamit bu baax quoi parce que guy gi moom ñun du suñu mbër suñu patron la suñu lépp la parce que tey mën naa ne bu demee tey ba ñun àddina xam ñu grâce à moom kon dañ ko koy sante bañaluñu dara ñun man ak ñii ñëpp bañaluñu dara namuñu dara tey guy gi bu demee ba amul ay sept étages wala vingt sept étages ñun la parce que lépp lu mu yor ñun la koy jox kon boo kon kooku tey bu amee bésam xam nga mënuñ def lenn lu dul xam nga jël suñu alal suñu doole suñu mën-mën suñu lépp ñu def ko si te tamit liñ ci def dañ ko xeeb trop sax parce que bëggoon nañ affaire yi gënoon a sax élevé wu xam mu gën a kii quoi. itam ma daal di gis lu daw yaram muy yaayam war a saar daal def témoignage si moom waxam ba xolam xolam do xolam daal di tooy lan nga ci jàngat. waaw loolu tamit dañ koy rafet ndax parce que maire bi bi ñu moom moom comme li mu témoin rek diiran bi ñu dëkkeek moom ay 17 euh, ans wala ay 11 ans guy gi mosul jënd xorom mosu ko jënd ceeb bi fala lay jógee maa koy jëli wala souvent ñuy jëli ko añ reer ndekki nga yor ko ay ponkal yombul si kër këram amuñ fa accès heure bu ñu neex la ñuy dugg heure bu ñu neex la ñuy génn di yëkkati alalam di ko def si ñun bu ñu amee problème mu taxawuñu buñ amee lu ñu neex mu taxawuñ buñ amee lu ñu naqari ndax man maa njëkk maa njëkk a guy gi jabar mam naa ay mag ay rak mais dama na ko guy gi cër bi yow yaa ko moom xoolal koo ko jox mu ne nañ ko jox war kii ndey caam yàlla dogal ma njëkk am doom bu jigéen ndey caam ne ma noo comme sa yaay dafa laaxu may naa la tur bi ma tuddee ko sama yaay maama deuxième doom tuddee ko ndey caam mooy comme li ma waxoon rek damay ñaan yàlla may ma wér ak kàttan ba doom bi ma bëgg a tuddee guy yàlla may ma ko su ma ko mayee bare jaratu mu may may doom baax na loolu rek laa dese loolu rek laa ko desel quoi am doom bu tuddee ko guy gi bu ma amatul doom sax baax na waaw man loolu rek laa ko desel jaajëf waay càmm. waaw ba tey ñu nekk ak le grand champion général Malika ngi lay nuyu. waaw mais ñu ngi lay fay ginnaaw bañ sant yàlla rek julli ci yonent bi gërëmaat suñuy ñaari waajur di nuyu waa Sénégal gi yëpp ah di nuyu axlu làmb tamit. tey nga ñëw ci bis sa mag sa xarit guy gi Euh, tey muy ngénte doom mun nañu xam ban genre relation ngeen séq. waaw guy gi moom suñu grand la suñu nit la ku baax la dëgg la ñoo bokk milieu làmb bi muy suñu mag ci làmb mais àdduna kuy sàkku cër da ngay joxe cër ba pare saaboo joxe cër rek ñu jox la cër guy gi suñu bu ñu jox cër la ñoo am tamit kilifa bu ñu boole mu sàmm loolu noonu fu ma fekk muy suñu benn kilifa boo xamante ne dañ koo bokk muy Cheikh Ablaye Diop boroom xaas. ñu bokk ko tamit looloo tax tamit ma gën koo jàpp moom it mu ñëw jëfe ko tamit jox ñu cër ñu jox ko cër rek mu xewle bisam wax ñu ko tamit lépp luñ jàppoon rek ñu bàyyi ko ñëw waaw. maa ngi ci entraînement ya ñun làmb lañ am instant bi nii dañuy am problème buñ toogee bëriwuñu barki yonent bi non ñu ngi ñuy wax nag mais xëy na liñ ñuy wax dadul mongoog suñuy bëgg-bëgg xam nga boo tollee fenn fi day am ci loo xamante ne loolu nga bëgg mais da ciy am adversaire yoo xamante ne tamit boo ko jëlee boo leen daanee duñ la yóbbu fenn. maa ngi ci kaw nëbbu ma ko kafuma ci réew ma ci ñi ci kaw laa teg sama bët doomu dàngu nee naa ko tëkkuwuma la mais làmb uneex la man ak ñoom jën kay wala coins nañ ñëw ñu bëre ñoo ñooy suñuy morom waaw. bu baax ñooñ defuñu fi luñ fi deful de au ndax ñun li ñuy def ndax dañoo boole ñaari pàcc yëpp ñun dañuy compétir nekk ci lutte sans frappe nekk ci lutte avec frappe te ñoom ñëpp amul ku ciy def lutte sans frappe nañ ñëw ñu bëre moo gën may tonte bi waaw ok waaw xewal